lenn daal leer na tey jii avenir du Sénégal moom mooy doon. léegi yi moom ñu ngi ci. lan ngeen yi bari na. Sénégal nag dañoo am habitude def lu leen neex leen leen condamné ñu ne ñoo tey on est souverain te fu ñu tàllalee kayit sur le plan international ñoom ñooy njëkk si. la direction des élections et le ministre de l'Intérieur fait qu'ils n'ont pas la compétence dévolue par la loi pour procéder comme ils l'ont fait, qu'ils ont porté gravement atteinte aux droits de Ousmane Sonko, qu'il ne leur pas de dire si Ousmane Sonko et doit être, dirais-je, la candidature de Ousmane Sonko est valable ou n'est pas valable parce qu'on, pour l'instant, nous sommes candidats à la candidature. Et ces questions ne relèvent que du pouvoir du Conseil constitutionnel, par de conséquence, puisqu'ils ont agi tel qu'ils l'ont fait. Il s'agit en réalité d'une violence d'État qui est exercée et qui n'a pas de fondement juridique assis. Et l'avocat général a demandé à ce que l'on délivre à Ousmane Sonko les fiches de parrainage. On a été surpris. Dès qu'il a terminé, le juge a commencé à lire sa décision. après un raisonnement où nous nous attendions à ce qu'il nous donne raison. Et certainement où le représentant du ministère public attendait aussi qu'il lui donne raison. Parce qu'il a reconnu l'urgence en raison des délais. Il a reconnu qu'il y ait que le droit de voter et d'être élu est un droit, est une liberté fondamentale. qui est garantie par la Constitution et prévue par les traités et conventions ratifiées par le Sénégal et auxquelles le Sénégal doit être soumis. Que le fait d'avoir de, des fiches de parrainage participe du processus électoral et que par voie de participe du voie du processus électoral. Après avoir reconnu tout cela, après avoir reconnu l'urgence Alors, le juge, brusquement, et sans que l'on puisse comprendre comment, il a dit que la direction de surveillance des élections et le ministre de l'Intérieur avaient le droit d'empêcher qu'on remette à Ousmane Sonko le fils de parrainage. Donc nous avons tous été assommés. Et jusqu'à présent, chacun se demande qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'en réalité, la fin était un murmure, et j'étais obligé de m'approcher de lui et de tendre l'oreille. Mais quand même, j'étais obligé d'aller demander au greffier, mais enfin, qu'est-ce qu'il a murmuré Il m'a dit il a rejeté. Et que comptez-vous faire maintenant Alors, j'ai dit que cependant, je ne suis pas surpris. Parce que écoutez mon raisonnement. j'ai été déçu. Parce que le droit n'a pas été dit. Que je ne suis pas surpris parce que depuis avec le pouvoir exécutif en place. Je ne vois nulle part la séparation de l'exécutif et du pouvoir judiciaire. Ce que je vois, c'est qu'il y a une rupture des amarres, des amarres entre l'État du Sénégal et la démocratie et l'État de droit. Par de conséquence, cela se reflète nécessairement dans les décisions. Et là, c'est bien dommage. Parce que nous sommes à un tournant historique où on veut priver le peuple sénégalais de la possibilité de choisir souverainement celui qu'il a décidé de mettre à la tête des affaires de ce pays. Et là, une poignée de personnes ne peuvent pas nous prendre en otage. Et il faut que cela s'arrête. Il n'y a pas de voie de recours. J'ai dit dans ma plaidoirie que dans un tournant historique où chaque homme, par la plume, par la parole, et par les actes prend ses responsabilités individuelles et engage ses responsabilités individuelles. Qu'il soit citoyen, qu'il soit député, qu'il soit juge ou qu'il soit ministre. Donc, moi, si je ne suis pas surpris, c'est que aucune décision ne me surprend depuis 2015. Ayant été là, ayant suivi et ayant pu